Mm-hmm. donc am na si peut-être ay pox ndoll yoo xam juristes mm-hmm. vraiment juristes hein ah, nyoko nyoko nyoko mm-hmm. nyoko nyoko ñoo ko ñoo yore. la pétrole bi c'est la même chose. hein président Macky Sall dafa doon wax ni. ceux qui en savent peu en parlent beaucoup. et ceux qui en savent beaucoup en parlent peu. oui oui xam il faut nous lier à un peu renverser la tendance. madame ñi nga xam ne xam nañ ci. dara ñu ñu wax xam nga euh, moo tax ma la suñu dañu am pétrole à gaz.

parce que pétrole ñi nga xamné bañ koy wax malédiction du xeex bi du reyante bi moy ñi jël sen revenu yépp tënk ko ci pétrole nga xamné bu bari bi yéegee ils ont de l'argent euh, bu bari bi wàccee loolu lañ wax la malédiction du pétrole bu pétrole bi jéxé parce que day duré bu jéxé sen économie ndërmeelu ñu naan qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. lan lañu ñuy def voilà mm-hmm. Hollande moo ko defoon mm-hmm. Hollande mo gisoon pétrole am bàyyi mbay mi bàyyi nap bi bàyyi lepp jubal ci pétrole jékki-jékki pétrole ba jeex économie de ndëlmeelu ils sont frappés de malédiction du pétrole. fa la mmh. malédiction par ricochet nag de yi nga xam réussir ñu ñu dëkk ils sont frappés par la malédiction comme ñi nga xam ne guerre du Biafra ñi nga xam ne pétrole. ben parti bi di ko lekk bàyyi ñenn a yooyu mais Sénégal. Euh, euh, man c'est un plaisir pour moi à chaque fois hein. mmh. ma koy ma repréciser rappeler bi pétrole génnee Sénégal je parle sous la la la sous votre contrôle Il y nga des ay journalistes il y def recherche yi ci li may wax ci laa wax ni est-ce que li may dëggalul dëgg mhm. c'est-à-dire lan la ci état Sénégal yi def pour dalal suñu xel mhm. lan la ci def mhm. ma ne li mu ci njëkk def mooy dafa indi ay li may ay innovation majeure Yo xamné ne boo ci Afrique ñi découvrir pétrole Ghana Nigeria Angola Soudan dëkk yépp yëpp xam nga bu ñu découvrir pétrole euh, euh, gulet yi yi yi euh, yi yi Sénégal indi ñoom indiwuñu ko ci woon. wala bëriwul boog ñu ngi ci indi. Mhm. ma wax ci rek quelque. Mhm. dañu jékki-jékki changer constitution bi daal di ne léegi. l' article de la constitution nee na. les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mhm. alors que bu njëkk ba les ressources appartenaient à l' état. état bi moo ko doon def xam nga tax fan la amee solo. boo demee dëkk bu mel ni Amérique. États-Unis c'est la plus des plus grandes démocraties au monde. yow boo fekkee pétrole si sa suufu laal. yow mi yaa ko moom yaay wax ak yaay wax ak pétrolier yi. mais gis nga ana yow Sénégal. boo hmm. fekkoon pétrole fii ci sa biir néeg bii wala sa kër. Hmm. état bi ngay waxoon ñun ñëpp ko bokk. loolu dafa am solo. moo tax waa Ndar ya doon wax ni non pétrole bi ñun si ñun la feeñee. donc ñun ñoo ci war a ëppale. Hmm. ñu rappelé leen article vingt cinq. déet. ñun waa Casamance. Ah. ñun waa Kolda. Mhm. ñun waa Diafar Santou. Mhm. ñun waa euh, Dimat Djeri. Mhm. Euh, ñun waa euh, Maka Ngoy Bey. ñun waa. Koulibaly Maka Koulibaly waaw Kousana rek. surtout wala mag wala mag Ganguel Souley ak Ganguel Baba. ñun ñëpp ci lañ bokk. ci lañ bokk en tout cas en tout cas voilà la vérité. donc naka lañu ñu koy traduire. moo tax état Sénégal jël mm. beneen décision. Mm. dafa woote.

conseil économique a lancé un appel d'offres international pour recruter un consultant pendant six mois. Mm. consultant accompagne accompagner leen. Mm. ñu xool ñu recevoir. lépp loo nous ne ñu ci mm-hmm. multinationales sociétés civiles, partis politiques, nous avons ñëw ku nous j'en parle à l'aise parce que je suis un consultant bien, pendant six mois mm-hmm. au niveau du comité scientifique. Nous fait un rapport jox ko président de la République ne ñun de nii lañ gis nga rapport boobu. Hmm. boo ko liiree yu bëri président avis la de maanaam li mu doon wax léegi. xalaat la xalaat la rek. Hmm. président du il n'est pas tenu. Hmm. appliqué ko waaye xalaat boobu yu bëri jël na ko ci. jël na ci ne d'accord na ak ñoom parce que daf ko def créer benn école INPG institut national de pétrole et de gaz pour que xale yi ñu leen ciy tàggat. mu ngi fii ci point E. jël na ci xalaat yu mel noonu daañu ne nañu sax def yeneen école ci région yi. Euh, Banque Africaine Développement su financé na pour ñu def benn école Saint-Louis pour les li ñu woowee bac moins ñi nga xam ne sax amuñu bac egguñu sax bac ñoom mhm. donc yooyu yëpp ay innovation majeure la mhm. mais bi ci gën a neex mhm. mooy ñett mooy les deux rencontres de Diamniadio benn bi président bi dafa woote foofu daal ne leen da ngeen may wax yéen Sénégal ñëpp fa nekkoon nag bu ngeen xoolee image yi ngeen ko gis ñëpp fa nekkoon ñu yendu fa 7 heures du matin ba 22 heures mu ne léegi nañ leen waxtaan xool pétrole bi ak gaz bu génnee naka lañ koy séddoo ñi sant Cissé ki jaxate euh, euh, ki Wade ki mbay mm-hmm. bu ñu xalaat ni dañu jël xaalis bi kër gu nekk ñu fëgg la ne la sa wàllaa ngi nii sa 400000 ñàkk ambition bu lu weesu loolu. Mm-hmm. xam nga donc li ñuy def mooy naka nañu koy séddu nit ñi waxtaan ci. Mm. gis nga bi ñu paree. Mm. dañuy def benn loi bu ñu tudd la loi su la répartition di revenus issus de but mm. am na loi. amna ñu koy séddoo amna na benn partie buy dem ci budget national. Mhm. ñu tabax ci école def ci dispensaire def ci ay école de football ay terrain dégg lu ñu def ko ci. amna benn parti boo xam ne dañu koy def ci benn fonds souverain mel ni waa Qatar dañuy def def ko ci xaalis mu muy jur. Mhm. loolu dañ ko gisee Norvège. Mhm. seen fonds souverain fonds bu am solo la mooy jël ay investissement di jënd ay équipe de football yu ne ñu def ko mu am loo xam ne dañ ko dencal ñi nga xam ne. fekkee wuñu ko suñu sët yi suñu doom yi. ñu woy génération future donc loolu lañ koy retenir ñu def beneen. ma ma gaawoon ñu def benn loi sur le contenu local. <laughs> waaw xam nga lan mooy contenu local. mooy balaa nga naan ne fa. yow journaliste. <laughs> daaw la naka ngay def ba ci pétrole bi nga mën ci gis sa bopp liggéey ci am ci xaalis am ci njëriñ. mais monsieur Dramé chaque fois nga gis fi ñoo xam te ñu et ay contrat pétrolier te yow nee nga nee nga ñoo ko bokk waaw mais contrat pétrolier. contrat pétrolier yi signé tey xamoo ñu ñoo signé xamoo. non non defal na defal na defal na xam nañ ko da nga naan demuñu seeti source information bi. xam nga lu ñun dafa am question yoo xam ne li ma waxoon keroog bi ñu dajee tali bi man la xam nga man damay jaaxal damay toog télévision dégg ñuy wax yoo xam ne nit ñi régler nañ ko ba dépassé ko bu yàgg. contrat pétrolier te gis nga sa smartphone bii. boo defee www.ite.sn e e boo fa duggee fekk fa tous les. contrats il yëpp nga fa tous les contrats nga lire ko www.itie.sn e tu as tous les contrats du Sénégal. même les contrats miniers sont là-dedans. ñettel ba. Mm. je termine par là ñettel ba itie. E, da nga e, ci responsabilité nga jël que dama ci bokk. Mm. lolu moy lepp lo xamné le la alal la contrat la na ci pétrole la ci mine. Mm. dang ko ci dang koy bind gis ko. sax suba suma jumul def un rapport 2022 buñu lépp traçabilité dañ naan la xaalis ñaata lañ fi nit ñi duggal nan la fa ki lan la fa def faut aussi rappeler que l'ITIE c'est un engagement volontaire. volontaire tu n'es pas obligé ken forcé wu la du kay dugg forcé yow yaay tok ba tok nga ne man ma bëgg dugg ITIE. exactement lolay ben bo boo ci duggee nag y a des normes te Sénégal aussi 2016 ba ñuy publier les contrats pétroliers la publication des contrats c'était une norme encouragée mais en 2019, c'est devenu une norme obligatoire. Mais madame, nous, Sénégal, quand on a commencé à mettre nos contrats pétroliers sur l'espace public, hmm. je pense que nous étions cinq pays au monde à l'avoir fait. Nous étions le premier pays africain à l'avoir fait. Tu as vu Ça dit Lolo, Lolo nous forcer. Moi, moi, Lolo, alors, ça rené. Est-ce que nous ni de quoi dit Sénégal il n'y pas accessible. Si, mais qui est Et puis c'est volontaire. On est volontaire. Forcément, nous forcé. Maintenant, beaucoup là, beaucoup

dafa am loo xam ne de population Sénégal seen bopp ñoo koy exiger gis nga candidat yi. Hmm. du ci kenn ku ci ñëw te doñu wax lu mën a dugg suñu nopp ci pétrole ak gaz ak ay enjeux ak noo koy gérer noo koy jëfandikoo fa mu jëm. moo tax bu ma déggee ay nit di wax hmm. renégociation des contrats pétroliers damay xaw a am problème mais dama bëgg entendement bi ñoom lan lañ ci dégg lan lañ ci bëgg naa bu ñu leeral ma ko booy lan est-ce que mooy contrat yi nga xam ne signé nañ ko Sangomar ba ñu commencé exploiter ba xam li ci ciy am euh, GTA maanaam bi ñu bokk ak Mauritanie gaz la du pétrole ba xam luñ ci am mm-hmm. est-ce que contrat yi dañuy xëy suba teel ne sociétés yooyu jóge leen fi ci bokkatu leen euh, euh, ñun ñu na ñeneen ñëw ñu négocier ko est-ce que loolu la ñuy woowee négociation de contrat pétrolier mm-hmm. xam nga xel mënul jàpp loolu parce que mm-hmm. multinationales yi c'est pas des enfants de cœur beneen bi la présence citoyenne c'est-à-dire nous citoyens et ça c'est un appel que je lance aux citoyens sénégalais gis nga vote yi voter nañu xol bu baax li def nañu def attention ñu bañ top passion passion ñu xër rek non ki suñu candidat baax na non mom bu de affaire day baax mom moy def ñu dem gis nga un président d'un pays pétrolier dafa am xol ci mu àddina bi toujours ma joxe exemple crise économique de 1929 aux États-Unis américains yi dañu jël benn pétrolier le président Hoover. Mhm. yóbbu ko au pouvoir parce que pétrolier xam nga pour lan. Hmm. parce que crise économique dafa <coughs> monde du pétrole bi di dajaloo pour xool ñoom nu ñuy séddee séddoo àddina ñu wër ni dañ foog ñu am interlocuteur kenn ku mën a wax ak ñoom ñu jël président Hoover def ko président un dafa def benn mandat la ñu jóge jële ko fa réglé na seen problème. Mm-hmm. xam nga loolu intelligence la. xoolal président Macky Sall dafa dem ci instance internationale yi. tubaab yi ne léegi ñun euh, euh, dootuñu sax financer pétrole xaalis pétrole ñu ñu dugal suñu xaalis. il faut aller vers les énergies renouvelables dañ dem ci énergie renouvelable yi seet yi ay ngelaw leeg. Mm-hmm. Euh, jant beeg machin et cetera mm-hmm. xam nga lu mu leen wax. c' est un plaidoyer mémorable. mémorable si si àddina jàpp na ko te loolu kenn mënu koo génne. dafa ne leen yéen mënu leen. ngeen développé ba pare ngeen développé wu ci pétrole bi ak gaz bi ba pare. ngeen mënuñu ko xaj ngeen ñu xaj. Mm-hmm. du du mënu ne. Mm-hmm. léegi yéen li ngeen ñu mën laaj kay. Mm-hmm. mooy ñun comme yéen da ngeen bëgg lu set rek renouvelable ngeen bëgg ay yenn source d'énergie propre laaj leen ñu kay ñu xalaat ñun ci suñu xalaat ñun africains yi. Mm. est-ce que duñu utiliser maintenant ay nouvelles technologies pour exploitation ñu bañ a polluer. Mm. loolu mën naa ne xoolal. moo tax ñu doon wax au début plateforme yi torchères yi dañ fi ñëw. dañuy làkk kii yi. xam nga ñooñu xam ñoom li ñuy wax de. parce que xamuñu ni loolu nit ñi bàyyi nañ ko. méthode yooyu. Mmh. tey dañu nekk ci yeneen technique ay espèces ñooy ñëw. Mmh. ay bateau yoo xam ne yu xarañ yoo xam ne mën nañu def lépp. Mmh. te duñu yàq lu bëri danañ yàq lu ñu yàq lu bëri. ñu ngi xool ca gàncax gi ñi ngi xool impact impact environnementaux yi képp ku ñëw indi ñëw wut si pétrole a gaz. état du Sénégal dana la ko laaj commission bi da ngay toog ay gouverneur ay administrateur civil yu xarañ yu ci bokk moo il faut ñu def attention ci discours yi il faut pas que ñu nekk ci ay discours expert oui euh, chiffres yi y a un milliard de barils bu ñu ko kii dee euh, kii lii gagné Sénégal à ci dara hmm. yooyu xam nga xam nga lan moo ci ëpp njëriñ hmm. ñun ban njeexital la am pour les populations sénégalaises moo tax li nga wax sànq am solo

T'as encore un parce que mais, aussi il faut il faut dire il faut dire une relation et une proposition du temps en temps ah il c'est éclairer cette lanterne aussi parce qu'il y a beaucoup de sénégalais qui sont en réalité euh, pour terminer sur ce que tu dis il y a eu un billet dans les découvertes xam le lan billet B I A I S. Mm. mais Madame mal doon bu ñu ko doon wax ci fausse euh, carte mm. il y a eu un billet xam le billet bi et c'est là peut-être pour moi que nos pouvoirs publics n'ont pas été assez prévenants. Il a fallu que Ablaï parle mhm. de découverte pour que le gouvernement nous l'annonce. c'est une mission. à mhm. mon meeting au def VDN bi. Mhm. mu pétrole frère Macky Sall m'a c'est là que les pouvoirs publics ont commencé à dire oui on a des découvertes. alors que ça devait être normal. et naturel que gouvernement a annoncé ni on a découvert du pétrole on a découvert du gaz voilà mhm. après dès le départ il y a eu une suspicion autour de cette affaire mhm. et cette suspicion a la peau dure mhm. je dois aller ce soir à iTélé on annonce que oui demain nous avons Aliou Sall là que ko 400 000 <laughs> parce que dans la tête des Sénégalais Aliou doit 400 000 à chaque Sénégalais alors que c'est absolument faux c'est ce noonu moo ñu Nous maintenant après il y a eu des efforts lay wax ITIE xam nga mhm. le Sénégal il muy publier les contrats pétroliers ce n'était pas une obligation mais par transparence le Sénégal l'a fait. Mhm. le Sénégal pour muy adhérer à du ITIE du pas forcé parce que ITIE c'est un regroupement d'organisations de la société civile. c'est tout hein tout. Nous avons au départ quel était leur objectif. Mhm publier ce que vous payez. Hmm. Moi, madame, publier rek que vous faut l'aider? mais Sénégal le code des mines de 2003 c'est un code où dans lequel il est dit les contrats sont du domaine du confidentiel. Hmm. mais en 2016 le Sénégal a mis dans son contrat les les contrats sont du domaine du public. Hmm. parce que cela, avancé là, parce que moi, mon mën nañ ci waxtaan fii ba parce que ñoo bokk secteur bu ñuy liggéey. voilà ay avancé la yoo xam ne am ci mbir mi mais malheureusement des fois euh, la mauvaise perception que les gens ont tax ne boo wax sax on va dire non toi tu défends le gouvernement lu mm. ñu dégg looy wax de wala jéemuñu xool ndax lu ngay wax tegu wala teguwul dañ la non nguur gi ngay faral alors que c'est des faits les contrats sont du domaine du public ku def it ya dugg tu vas avoir une ligne où tu as tous les contrats tout yi fi Sénégal ba Sénégal ba tey a ngi fa muy muy aujourd'hui l'ITI sort son rapport on sait combien de lingots d'or le Sénégal a produit mhm. on sait combien de lingots d'or on a vendu mhm. on sait combien combien combien Le yëpp lu xam la te démb ak barki démb xamuñu ko woon loolu mooy maintenant nag mu des comme il dit les ressources bu excès qu'est-ce qu'on en fait mhm. qu'est-ce qu'on en fait tey aussi malheureusement on n'insiste pas dessus là-dessus très souvent. Mhm. le Sénégal est plus gazier que pétrolier. Ah, confusion confusion Sénégal pétrole la pour bay mais Sénégal gaz amu ko ci pétrole. confusion le bord nous ñu ñu suñu pétrole mais lu am gaz ful na suñu pétrole quatre fois cinq fois ah mais nag monsieur Fofana. Ah. Sénégal am na gaz am na pétrole. mais pourquoi on peine à décoller là. vraiment ah, vraiment parce que mais bañ fa ñuy wax ak yow nii. Ah. waaw waaw boobu bëggoon sa xaar ba ma ñëw. après ma laaj ko moom lan mooy exploitation ak. explorer non xaar xaar xaar bon je vais je vais je vais répondre après. waaw je vais répondre il va il va compléter. on tarde on tarde. première chose. Il faut savoir, ouais, première chose, il faut savoir que nous avons du pétrole offshore. Mhm.

donc ça veut dire que nous sommes pétrole ci géej la nez, mais ci bir qui ci souf loolu la nit war comprendre Bien. deuxièmement xam nga une ñun am frontière terrestre ak frontière maritime pétrole bi Sénégal dafa am frontière maritime pétrole bi muy ci eau maritime yi. ñoo ko suñu bopp pas dans les eaux internationales où dañ ne ku njëkk yaa mais fi c'est des eaux territoriales sénégalaises. muy maintenant pour dem dans la zone où se trouve le pétrole il faut à peu près 200 miles. 200 hmm. miles mooy diggante Sénégal Dakar Kaolack en distance Moi, maintenant boo taxawee ci tefes gi. Hmm. di nga daw lu toll ak Kaolack pour mën egg ci zone bu il ni pétrole bi hmm. profondeur. non non non. à peu près 200 km pour arriver dans la zone du pétrole. deuxièmement on est au niveau zéro de la mer. fu ñu nekk nii. le niveau zéro. Mhm. pour atteindre la zone où on dit deep offshore profond il faut aller jusqu'au-dessous de la mer. Mhm. après tu fais 2000 mètres encore. te dessous diggante yow fi dessous de la mer mhm. c'est 3000 mètres minimum donc après tu fort 2000 mètres ci biir muy 5000 mètres donc ça veut dire que bo déggee ni ñu naan woy suñu pétrole tank nañ ko ñu ngi koy yobbu te yow mu leer la ni fu mu nekk yow munoo fa accès yow mi xam gut gut génnagul voilà tok pétrole génnagul daan na pour mais aussi pourquoi l'état du Sénégal ñi xam ño ño am santé ci mbir mi il ne pas bien communiquer alors que lu tax alors que yéen solution de communication moi je vais parce que laisse-moi <laughs> blâmer xam nga je vais vous blâmer tu sais pourquoi ah. au lieu d'inviter les gens qui en parlent vous invitez les gens qui font du bruit autour du pétrole yéen médias yi yéen you gars parce je peux je témoigner que nous ko te ah si si il ne refuse pas des invitations ça je peux témoigner sauf s'il voyage. man man man man hmm. toujours si wax. Hmm. dama damay wax ci sama ma waaw ku nek nak amna xel. na nga def sa opinion bopp. voilà waaye mbir mom ñu lay démé limi mu wax nii kenn mënu ko génne. légui nak gis nga wax ba léegi guutu ko. légui nak maintenant légui nak maintenant sur ça pour terminer avec ça. Mhm. tu vas dire aujourd'hui que la plateforme qu'on est en train d'exploiter Sénégal Mauritanie. Mhm. ça a coûté 5 milliards de dollars. 5 mhm. milliards de dollars, c'est 2500 à 3000 milliards de francs CFA. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu es prêt à prendre 3000 milliards de ton budget pour dem wëri pétrole bo xamné woru li di ko gis li di ko gis té boko ko woru li di am kuko jënd après nak nga ñëw nga tok qu'est-ce que tu fais de Bachir pour mu faju qu'est-ce que tu fais de Anna pour mu dem marché et cetera donc l'intelligence c'est de dire nañu bàyyi ñi mëne té am té paré dugal ci sen xaliss nañ ñëw bu ñu amé ñu seddoo Maintenant, aujourd'hui, il y a d'abord l'exploration, tu recherches. Et l'exploration coûte 1 million de dollars par jour. 1 million de dollars par jour, ça fait quoi 650 millions de francs CFA. Sur un mois, ça fait 18 milliards.

après ñu def ci large diffusion. pour que mm. Sénégal yëpp ñëw. ñu wax ci li nga xam ne li may pétrole et gaz au Sénégal. Mm-hmm. passé nañu léegi innovation majeure yi ngi ci vérité et contre vérité. Mm-hmm. parce que dañuy dem ci élection présidentielle. Mm-hmm. il faut que nit ñi xam dëgg. nit ñi mënuñoo dem di voté ji di jàpp ni ñi ngi jël suñu pétrole di ko sàcc kon maa ngi voté parce que pétrole goud un gaz pour compléter répondre à ce qu'il dit répondre à ce qu'il dit. il est vrai que communication mom mm-hmm. toujours communiquer il faut toujours communiquer mm-hmm. mais xam nga euh wax c'est-à-dire yow hein, ni na ci ni na ci. Mm-hmm. ni na ko ni na

bu ñu génnee pétrole bi dañu koy jaay mm-hmm. suñu ko jaayee pétrole laay wax de dañu koy jaay bu ñu ko jaayee. Mm-hmm. dañuy jox état wu Sénégal wàllam. Mm-hmm. état ci boppam dañ koy jox bu ñu génnee seen coût yi maanaam lañ ca dépensé. dañuy génne béy seddoo la waaw ku xam béy seddoo xam loolu. moo nekk ci ko Abdoulaye Latif Kane di. béy seddoo la béy seddoo. waaw l' expert pétrolier Abdoulaye Latif Kane di souvent béy seddoo la. maanaam da am tool. mënoko ko mënoko mënoo waji jëriñoo waa indi xaalisam indi engrais indi yëpp su paree day génne ay frais lu dess ngeen séddoo mm-hmm. mais amna na beneen part état wu Sénégal impôt impôt ak taxi dama don mm-hmm. waxtaan ak wa wa euh, budget wu ñi liggéey ci ministère des finances mm-hmm. mais may rendre compte ñun dañu fi nekk naan footballeur yi dañoo ay euh, mbërikat yi dañoo ay machin mais foofu dañu am ay fonctionnaires yu xarañ yoo xam ne ci mbirum pétrole bi dañ ci liggéey lu bëri ñuy ñuy rappelé ki ki ma waxtaan mooy rappelé mi ngi liggéey ci programmation budgétaire ni ma dañuy wax paaru Sénégal impôt yi. Mm-hmm. mooy maanaam société yi fi nekk dañuy fay impôt waaye contenu local. Mm-hmm. maanaam société sénégalaise yoo xam ne dañ fay impôt. képp ku laal ci pétrole bi ci liggéey da ngay fay l'impôt état bi. Mm-hmm. mais l'impôt état bi mais moo tax suñu lamp yi tàkk. benn bi ci ëpp solo ni ñu doon waxu waxu waxu facture courant yu seer. gaz bu ñu ko génnee.

buñ ci bu ñu bu wàññeekuwul ñu ne mais lañ ñu waxoon kat amul. Mhm. waaye yow exploité guñu. une nañu programmation je termine en disant toujours et je le rappelle et j'aimerais bien le rappeler et je vous invite effectivement mhm. que ñu def Bachir. bien sûr c'est bien qu'on discute spécialement. sur le Sénégal à la veille des élections véritablement contre alors je termine tout le temps en disant que le que que le monde du pétrole. il faut répondre ci loolu le monde du pétrole. Mhm. ce n'est pas un monde de certitude. c'est le monde de l'aléatoire. c'est-à-dire yow mën nga dem gas au Sénégal depuis que le Sénégal est Sénégal on a foré sur 173 puits Vous ngeen découvert découverte lañ am. Depuis 15 là. sur les 160, là fa yu significatif. total voilà. mais am ngeen 15. non non Sénégal général bañu dafa la ni ba commencé. de 1917 waaw di wër pétrole Sénégal. néna 173 lañu lañu la ñu gas. Hmm. waaw amuñu lu mat 15 yo xamné découverte significative. yo xamné ne nga ko exploiter mën nga ko exploiter benn. je termine si ñaari affaire c'est important je tiens tellement à le dire. Mhm. Euh, je disais que le monde du pétrole ce n'est pas un monde de certitude. Mhm. C'est un monde assez aléatoire. Mais c'est un monde organisationnel de prévision et de modélisation. Mhm. boo xamoon suñu ingénieur morom la mhm. hommage jeunes ingénieurs. ay nous moins ans plateforme mhm. total société totale. di fi indi ministre né dañu jox total pétrole ba mo tax moom tam mu bay xam ma mu bàyyi xaw ma dañ mo daal waaw mu démissionné waaw léegi total ba mu démé di seeti Rufisque fañ ko waxo 50 millions d'euros la si dugal 75 milliards de francs CFA gisuñu dara gisul dara jël nañu seen bagage dem kon kay nga wara xam ni état du Sénégal mom xamul fu am pétrole ak fu ko amul bien sûr da fay nek ci ay recherche mhm. ñi koy recherché ñom lay wax kay leen sét bu ngeen gisoo nak mhm. ñu bay seddoo bu ngeen gisul ngeen jël seen bagage dem xam ne yéenay perte suñu ñaar dërëm di ci dugg mhm. waaw waay loolu li ci ñëw li ci ñëw yàggatul moo tax jarul xuloo jarul jarul jarul xeer nañ leen bàyyi ba déwén mais en tout cas li ci am solo soxna Yeta mooy li nga wax c'est-à-dire war nañ ko waxtaanee lu gën a yàgg surtout moment wu élection voilà nit ñi xam fu ñu nos votes vont être déterminés mm. par les enjeux des pour en revenir à ce que à ce qu'il disait mm-hmm. xam nga il y a des modèles de gestion il y a ce qu'on appelle le contrat de service boo demee ay Dubaï ay Arabie Saoudite loolu hmm. mais contrat de service bu nous pendant très longtemps ils ont presque 70 ans d'exploitation pétrolière par rapport à nous uh-huh. dem nañ une expertise ñun hmm. dañuy hmm. donc il y a contrat de service il y a ce qu'on appelle contrat de partage de production. nous le Sénégal on a opté pour le partage de production Moi, y a un suuf souci waa ji ñëw na indi na xaalisam wër na. gis na ba mu gisee mu ñëw mu ne kaay leen waxtaan ci modèle lañ koy exploiter. Hmm. parce qu'il y a l'exploration il y a le développement il y a l'exploitation hmm. les dans le développement tay ji mo waral sur le Teranga yakar état du Sénégal de ak ak BP ak BP BP mu je me retire BP parce que BP lu mu état hmm. parce que état man le champ pétrole, le champ gazier de Teranga Yakar, je le veux exclusivement pour ma production nationale. Pour le gaz programme gaz Parce que le programme gaz tout pour, moi, madame, comment transformer euh, les turbines de fuel de Sénélec avec du gaz pour que l'énergie soit moins chère. Vous savez, tout le monde courant cher. Si nous à exploiter le gaz, non, non, on, on peut avoir une baisse jusqu'à 50% par rapport à ce que nous payons jusqu'à 50% de baisse sur le prix de l'électricité mais l'autre option option état du Sénégal parce que dafa bëgg ni gaz pour mu développer économie Sénégal exactement alors que BP dafa bëgg gaz bi jël ko jéggaani jaay. il peut se retirer ah, oui oui vas-y vas-y vas-y <laughs> ah, il se retire parce que. au lieu il se retire. Il se retire. il se retire il se retire Il se retire. Il se retire. Il se retire. Il se retire. Il se retire. ana se présenté. Euh, émission matinale bi ñu ne Anna n'est pas là ñu ne Yatakaay toog parce que waaw parce que foofu lañ toll léegi parce que on a découvert on sait qu'on a du gaz maintenant quel comment l'exploiter bu mbul bañee rek luñ si teg lambay nangu jeex na parce que fu mu toll nii moom ñi du wër pour seet xam nañ ni am na gis nañ ko calculer nañ ko quantité yi xam nañ ko xam nañ ni mën nañ ko exploiter sur 25 à 35 ans ci kanam loolu yëpp xam nañ ko léegi nag ki nangu ñëw ànd ak ñun ñu def loolu ñu liggéey ko ko nangul keneen ñëw rek alors rapidement rek ñu euh, wax ci euh, la question des diamants bi nga xamante ne nii secoué na pratiquement hmm. euh, lii di actualité hmm. semaine dernière avec les révélations de maître Moussa Diop mais vraiment man boo ko déggee damaa kontaan hmm. parce que dama ne Amine alhamdulilah rabbi alamin